dalal ah, tey ji fas yéene waxtaane ak moom ak ak yelleefu jigéen ñi. waa Ndeye Comba maa ngi lay fay. voilà ñuy kontaan bu baax ci sa disponibilité xam naa sax ah, ci njëlbeenu question dañu lay laaj ci réseau Siggil Jigéen ci boppam bi ngeen koy sos ah, lan moo ko tax a jóg réseau Siggil Jigéen. jërëjëf euh, Ndeye Comba euh, laaj boobu dina ma neex lool parce que réseau Siggil Jigéen contexte bi mu sosoo moo di le contexte de 94 euh, lors de du forum préparatoire africaine en 1994 alors euh, ba ñu defee euh, état des lieux bi droit des femmes Séné ci Sénégal ak ak yelleefu jigéen ñi li nu gis moo di des dafa am lu bëri lu des xëy na suñu réew bi ak comme réewu Afrique yi yëpp ratifié nañu ay convention def nañu ay loi waaye lu bare bare dafa des ci uh, wàllu àq ak yelleefu jigéen ñi jamono boobu uh, état bi gouvernement yi bu ñuy xayma bu ñuy xalaat projet ak développement du ñu jël jigéen uh, ca njëlbéen ka waaye dañuy xaar ba xalaat seen projet ba pare bu ñu demee ba di ko réaliser nag ba dem ci terrain bi fekk fa ay jigéen daal di ne ah tiens ndekete réalité bi de moo ne jigéen ñaa ngi fi léegi nan la ñuy def ñu ne nan leen sédd euh, bu dee ci projet agricole ñu ne nan leen sédd toolu toolu tookóor mbaa loo nga xamante ni danañu man cee jàpp bu ñu bayee ba pare ñu ñëw ngóobal euh, ñu ko wala ñu def nii def naa mu di approche IFD ah ci droit yi aussi bare bare bare bari réew mi tumuranke woon lool ci àq ak yelleef jigéen contexte boobu nag ñu xool ko Sénégal war a recevoir la conférence africaine préparatoire nawleem yi ci Afrique yëpp ñu ne ñun jigéenu Sénégal organisation yi nekk ci àq ak yelleef jigéen ak àq ak yelleefu doomu aadama il faut que ñu xool dajale suñuy doole xool nag euh, nan la ñuy ànde nekk benn pour mën a def ay proposition mën a am existence boo xamante ni bu ñu te tëgg tëggee li ñuy waxtaan ak nguur gi ba pare ñu mën ko jaarale ci jëf parce que dina dinañu bari doole parce que bu ñu boolee suñuy ci loolu nag foofu nag ci la réseau Jigéen sosoo mu doonoon juróom-ñaari kuréel yoo nga xamante ni ñoo ko sos ca base ba kuréelu ràddi ci la bokkoon ak Mazid Ndiaye Mm-hmm. kuréelu rado ci la bokkoon ak Aline Tine kuréelu ANAFA ci la bokkoon booba professeur Bouba Diop moo koy doon diriger ak uh, kuréelu jigéen yi ku mel ni COPDEF te Thiès boobu man maa koy diriger ku mel ni APROFES ca Kaolack ak uh, uh, ku mel ni ku mel ni ASBEF ci Sénégal waaw ak ba muy juróom-ñaari kuréel ñun ñoo ànd sos réseau Siggil Jigéen mm-hmm. en 1994 ñu officialisé ko en 1995 mu toog doon réseau jii kuréel boobu kon gën na màgg gën a yaatu euh, yan organisme ñoo daw euh, wutali euh, bokk ci réseau Siggil Jigéen ak lan moo leen ci poussé lan mooy wone doolewu Siggil Jigéen ba saa su ne gis nañ ni kuréel yi siy bokk dafay gën a bari parce que yeneen organisme organisation wala association ñëw nañ bokk ci bile réseau. waaw xam nga ne nee naa ca njëlbeen ga juróom-ñaar la ñu woon li ko waral moo di euh, organisation yi ci Sénégal yëpp dañu ci gis seen bopp ci li ñuy def ndax euh, li nga xam ne moonu tënk moo di mission bi ñu àndandoo moo di mission wu delloo jigéen place jox statut wu jigéen taxawaayam ci biir société ñu naan ko amélioration du statut de la femme Euh, ñu tënk ko ci euh, rétablissement de rapport de genre égalitaire au niveau de la société maanaam diggante góor ak jigéen ñoo euh, góorgóorlu ba yam sañ-sañ àq ak yelleefu jigéen yi ñu sàmmonte ko ak àq ak yelleefu góor yi kenn ku ci nekk am sa sañ-sañ ak sa ak sa àq ak yelleef ci kuréel gu mu mën a doon ak suñu biir réew Hmm. Euh, tey jii boo ñu loolu la ñu tës sunu vision ak suñu mission moo waral ñu bëree bëri. Mhm. ràññeeku ne war nañ ci mën a bokk ñuy ñëw di laaj pour bokk ci euh, bokk ci nag pour que nga bokk ci dangay ngay doon kuréel. ñu reconnaître la. Mhm. nga bokk ak ñun gis-gis bokk ñun xalaat. Mhm. bu ko defee conseil d'administration bi examiner sa dossier. Euh, ñu xaar ba age ñu proposer ko. AG bi euh, mën a statuer euh, d'accord ni war nga mën a bokk ci sigil euh, jigéen bu defee ñu yaatal la nga bokk ci ah, lii moo mhm. waral ñu am tey fukki kuréel ak juróom-ñett mhm. te dañuy continuer di ubbi voilà gën a yaatal mais lan ngay tontu ñi jàpp ni réseau sigil jigéen ay jigéen rek ñoo fa war a nekk déjà li ma la wax ci kuréel yi ko sos daanaka mhm. kuréelu jigéen yi barewu ci ndax bu nu la nee ANAFA président euh, professeur Bouba Diop bu université Dakar moo ko jiite. Mhm. ay góor ak ay jigéen a ko bokk. RADI euh, Mazin moo ko jiite góor ak jigéen a ko bokk développement la ñuy intégré la def. rado euh, moom itam ñëpp xam nañ ko àq ak yelleefu doomu aadama la góor ak jigéen a ca bopp ak bef itam wax dëgg yàlla góor ak jigéen ñoo ko bokk c'est pour le bien-être de la famille alors COSDEF euh, euh, daal laa xam ne c'est le collectif des femmes pour la défense de la famille. Mhm. te boobu itam am na góor am na jigéen. ak euh, APROFES itam spécial spécificité moo di c'est le association des femmes moo moom itam spécificité am ay jigéen lañu. waaye organisation yi ko bokk góor ak jigéen yépp ñoo àndandoo parce que ñun àq ak yelleefu doomu aadama bi. Mm-hmm. moom la ñuy lijjanti gën ci ràññee nag ay rapport yoo xamante ni góor ak jigéen ñoo ko bokk pour ànd defar société bi waaye kenn ku nekk respecté sa àq ak sa yelleefu moroom ñu tëggee société bi noonu tënk ko ci noonu pour que rafet loolu moo tax a. tey jii boo ñu góor ni ak jigéen ñi ñu ngi ci biir kuréel ñu ngi tey ay kàngami góor. Mm-hmm. la ñu bokkal conseil d'administration bi bokk ci kuréel yi yëpp bokk di liggéey. Euh, voilà jii boo ñu doon wax euh, Safietou jóob nañu euh, lii la réseau sigir Jigéen def pour jigéen ñi fii ci ci Sénégal ci wàllum ak ak yelleef yan ak i ngeen am vraiment mu nekk résultat boo xam ne réseau Siggil Jigéen def na ko fii ci ci Sénégal. ah Ndumbe ak yi bari na lool. ndax dabor bu ñu teetloo li nga xamante ni mooy suñu axe d'intervention. ñu tudde ko ñetti wasi ci nii ci baxal ci nu développement euh, was bu njëkk bi moo di intégrité physique et morale de la femme et de la fille mooy lépp loo nga xamante ni àq ak yelleefu jigéen la pour que mu mu mën a euh, sell mën a ñu mën ko bàyyi ci sagoom te bañ a bañ ko ñooñantal bañ ko wàññi bañ ko naqaral bañ ko violenté ci loolu lay la la sës waaw ñu naan ko axe de l'intégrité physique et morale. Mm-hmm. alors mooy axe bu njëkk bi. kooku moo ñu may ñuy xeex lépp luy njongalum jigéen lépp luy violence basée sur le genre di wàññi xelu jigéen ci ay dóor ay saaga ay métital ay wax yu ñaaw te xam ni personnalité jigéen bi ak euh, taxawaayam lay wàññi ci akkan wi ndaxte. Euh, daf koy tax a ñàkk fit daf koy tax euh, ñàkk gëm boppam dafa koy tax wàññeeku was bi ci topp mhm. moo di wasu application des droits mhm. maanaam ñu jëfe euh, li nga xamante ni moom la yoon teg alors loolu xam nga ni réew mi buñ koy wax Sénégal ñëpp xam nañ ni li yoon tëral ak nañ koy jëfe dafa wuute lool surtout ci wàllu àq ak yelleefu jigéen alors mu doonoon lu doy waar ci application bi ñu ne fokk ñu gëstu ci seet loi bi li mu may li nga xamante ni war nañ ko ci mën a sàmmonte ak gouvernement bi mu aaje teg ko ci yoon li nga xamante ni mënut a nekk te loi beneen moo ko war a mën a mottali ñuy def proposition pour que loi yooyu am ci axe boobu ci la ñu amee proposition loi bi nga xamante ni tey jii mooy loi de quatre-vingt-dix-neuf moom moo tax dóor yeeg saaga yi paset da dàq jigéen fànn ca biti jeex boo ko defee ñu yóbbu la tribunal tëj la kaso alors euh, ci euh, axe boobu ci la amee ak yu bare bare bari ba lutte contre les violences faites aux doon une réalité au Sénégal ñu di ko di ko euh, di ko liggéey liggéey bu rafet a rafet waaw alors euh, ci la ñu am proposition de loi yu bëree bëri itam. Mhm. alors ak beneen bi mu di ñetteelu wax bi. waaw moo di euh, pouvoir maanaam euh, takk ndomba tànk ak jigéen ci kuréel yi nga xamante ni fa la ñuy ak fa la ñuy noccee maanaam kuréel yi baati kilifteef yi ci askan wi waaw góor ak jigéen yam ci sañ-sañ ñu mën ci ànd bokk ci def liggéey ko alors ci loolu ci la ñu sëkku sësu waxtaan ba xamante ni xam nañu ni li ñuy metti du caagante ni ñu am ay euh, projet rek waaye il faut que ñun ñu nekk fa ñuy nase ak fa ñuy noccee fa ñuy fale ak fa ñuy follee ndax suñu ko defee ba euh, mën a décider ci lépp loo xam ne mooy euh, soxal suñu askan dina dinañu mën a décider pour que li ñuy metti ci askan wi yépp loolee day hmm. li nga xamante ni moom la askan wi di jàmbat mu di ay besoin dañu war a euh, saytu alali askan wi doxale ko besoin askan woowu ñun suñu fa toogee ñun jigéen ñi dinañ ko saytu na mu waree parce que askan wi suñu njaboot lañu Euh, lii mooy ñetti was yi nga xamante ni mooy was si euh, ngir jigéen mu di euh, intégrité physique et morale application des droits et accès à la prise de décision hmm. ci loolu nag programme yu bëree bëree bëree bëri tënku nañ ko liggéey nañu ko depuis quatre vingt quinze bu Sénégal di amee jéego tey ci domaine yu bëri c'est parce que réseau Siggil Jigéen liggéey ni ci lu bare bare bare bare mhm. wante tamit dinañ la laaj ci activité yi nga xamante ne si Siggil Jigéen mi ngi koy def parce que euh, lii nga lim xeex yi du xeex yu ndaw ak yi tamit du yu ndaw mais danañ laaj euh, réseau si Siggil Jigéen ñan ñoo leen di financé ñan ñoo leen di jox koppar pour ñu mën a def li nga xamante ni ñu ngi koy def waaw loolu question bu am solo la mhm. parce que lépp lu woyee bi liggéey dafa fekk boole nga am loo ko liggéeyee. waaw d' abord euh, contexte bi ñu commencé sos réseau dafa fekk coopération canadienne waa Canada yi indi alal ci Sénégal fas ku yéene jàppale organisation yi taxaw leen jàppale leen ñu naan ko CICI. Mhm. ONG canadienne la. Mhm. ñoo ñooñu jëkk a jàppale ñooñu jàppale de quatre vingt quinze à deux six ñoo jàpp ci accès yooyu yëpp mhm. financé suñu programme essentiel mhm. nga xamante ni lépp loo lu ñu traduire ci actions yooyu en programme et projet euh, le jàpp na ci coopération canadienne dans sa jàpp jàppale waaye du ñoom rek ndax boo amee programme am ay projet ah ñeneen ñu ngi ci réew mi mu di ambassade yi ak euh, ONG internationale yi ñoom itam jàpp nañu ci loolu daal laa la mën a wax. ci ci côté financement yi globalement ci côté financement yi. Hmm. USAID itam. waaw la coopération américaine. Mm-hmm. ci ñi ñu gën a jàppale ci la bokk. ndax ci organisation yi jëkk a am possibilité accéder ci financement wu coopération américaine réseau Siggi Jigéen def ci bokk. Mm-hmm. ay plan euh, à long terme ñoom la ñu doon def mais ñu tout le temps. dañu ci ànd ànd ak ONG américaine yi euh, inscrire euh, ñu am ci financement bi di ko exécuter ay trois ans ay quatre ans ay cinq ans vraiment di ko liggéey liggéey bu rafet ba léegi mën nañoo wax ni ñu ngi ci suñu quatrième partenariat. Mhm. avec l'Amérique ci liggéey boobu. bi nga xamante ni doon suñu partenaire stratégique bi gën a am solo ci liggéey bi ñuy def ci euh, askanu Sénégal. voilà tey jii tamit dinañ la laaj tey boo doon natt ak euh, Sénégal euh, hmm. ci situation euh, ci àq ak yelleefu jigéen ñi fii ci Sénégal tey boo ko doon natt lan nga ñu ci mën a wax dafa am avancé dañu dellu gannaaw dañu continuer di ko jalgati en tout cas lan nga mën a wax ci situation actuelle des droits des femmes au Sénégal. waaw Kumba question boobu am na solo trop. Hmm. ndax xam nga vingt cinq ans ngi nii. ñu ngi appliquer plan d'action bu Beijing bi nga xam ne fukki poñ ak ñaar la euh, état wu Sénégal souscrire ci déclaration bi war ko jaarale ci gëf ci biir fukki poñ yooyu ak ñaar mën nañ ci lim ne lutte contre la pauvreté maanaam xeex ndool gi mën nañ ci lim wërgu yaramu jigéen ñi sa santé des femmes mën nañ ci lim njàngum jigéen ñi mën nañ ci ah, lim la petite fille prise en charge doom doomu jigéen bu bu ndaw bi ci biir njaboot gi mu doon point boo xamante ne bu ñu amal solo la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba muy fukk ak ñaar alors boobaak léegi nag réseau Siggil Jigéen comme bokkoon na ci ñi ko bind bokk ci ñi ko adapté bokk ci ñi ko euh, delloosi dañu ànd ak gouvernement bi def ay plan d'action national def ay stratégie nationale ci la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre jóge pour doon les politiques et programmes de l'État pour ñu mën a traduire plateforme boobu ci jëf waaw def ko ay équilé pour que Sénégal mën a gis boppam ci platforme boobu jigéen Sénégal mën ci gis seen bopp mën ci euh, relever wu mm-hmm. alors réseau Siggil Jigéen ci boppam euh, at mu jot ba ñu commencé plan boobu quatre vingt quinze mën nañu si at mu jot tëgg nañu programme ci ñetti was yooyu ma la wax euh, euh, di ko liggéey ci wàllu wërgu yaramu jigéen ñi ak njur gi mu di planification familiale def nañ ci lu bëree bëree bëree bëree bëree avec l'appui de l'USAID tey mën nañoo wax ni bu amee gratuité de la césarienne c'est parce que réseau Siggil Jigéen def ci liggéey plaidoyer boo xamante ni euh, euh, en deux mille six lañu ko lañu taxawal euh, Ablaye Wade accepteel ñu ko ñu plaidoyer boobu xombol la ñu defoon forum national bi mu ni à partir de maintenant dinaa def gratuité de la césarienne benn jigéen boo nga xamante ne buy wësin Euh, te war a ñu war ko opérer dinañ ko def gratuitement pour que ñu éviter deetal jigéen ñi ci wasin ci njurum doom mu di akki bu am solo tey mën nañu wax ni ci wàllu politique bu ñu amee loi sur la parité mhm. c'est parce que réseau Siggil Jigéen liggéey na ci Sénégal yépp ko reconnaître amul benn élection amul benn phase de de de mise en œuvre vraiment des, euh, des politiques à travers les instances élues yoo xam ne réseau Siggil Jigéen jëlu ci programme accompagner d'abord jigéen ñi préparer leen pour que ñu mën a taxaw am leadership ci seen biir parti mën a doon ay candidat mën a jëmmal seen bopp euh, société civile bi taxawu leen pour que seen parti daal leen def leen ci liste yi te mu am démocratie ci seen biir ñu am taxawaay ci seen biir parti ak biir politique bi xeex boobu ñu ànd ko ak waa COSEF ak ñëpp ba tey jii ñu am loi sur la paris ndax bu njëkk en deux en quatre-vingt-seize euh, niveau de représentation bi six pour cent la woon dans les instances de décision locale maanaam téeméeru euh, nit bu ñu jël ci élu yi juróom-benn kese moo ci ay jigéen moo ne bu ñuy fal ku nekk xam na ne jigéen ñooy mobiliser ñoom ñooy sabaru. ñoom ñooy def déguisement ñoom ñooy def seeni i tànn béer ñoom ñooy meeting ñooy yanu seen càmmiñ yi ak seen doom yu góor yi ak seen jëkkër yi fal leen teg leen ca kaw wëlbatiku delluwaat ci seen furno ak ci seen waañ konti bàyyi leen ñoom ñu doxal euh, politik yi askan wi loolu nag ñu ni mënatu la ne mm-hmm. ndaxte nag ñoo bokk jàng mi ñoo bokk àq yi ñoo bokk lu ñuy bëgg te euh, bu ñu seetloo suñu rôle ci askan wi wax dëgg yàlla ñun ñoo gën a taxaw ci lépp loo xamante ni askan wi euh, moom lay jëriñ ñu ne nag euh, il faut ñu taxaw nag xool ba xam nan la ñuy jàppale suñu bopp pour que ñu yegg ci première décision bi moo di woon ñu am quota wu 33 pour cent ci liste électorale yi ba loolu jàllee entre quatre vingt seize quatre vingt dix sept ba quatre vingt dix huit élection quatre vingt dix huit député yi ñu ni nañu yéegale nag parce que laaj nañu laaj génn wàll ak génn wàll waaw cinquante pour cent cinquante pour cent mu di loi paritaire mhm. ci lépp lu foo nga xamante ni fa la ñuy nase la ñuy noccee ah revendication boobu nag daal di trouver une oreille attentive auprès de maître Wade Euh, président de la république euh, mu accueillir ko taxaw ko et loolu bala ma jàll damay gërëm euh, ñi nga xamante ni ce sont nos mel ni Binta Diop au plan africain ndax ci ñi jàpp ci mbir mi ci la ñu bokk ndax dañ ko plaidoyer au niveau de l'Union africaine Maître Wade jële ko foofu soutenir ñu au niveau de l'Union africaine ñëw nag ñu ne ko bay ci say oom bu fekkente ni da taxaw ci say nawle Euh, ca Afrique wax ko fa defe naa ni da ngay commencer pour que ñoo ñooñu gis ni yow yaa ngi koy jëfee te loolu moo indi tey ji engagement boobu moo indi loi sur la parité moo indi tey jii ñu am ci assemblée nationale même buñ ci amewul parité intégrale ñu fa am fa une représentation bu am solo de plus de quarante trois pour cent voilà te instance de décision yi yëpp yi xamante ni ci élection lañ koy jële ñu am ci représentation. mais dañu gis ne tamit euh, pour ñu respecter parité boobu ça pose problème Safiétou Diop. waaw euh, c'est normal. parce que le respect de la parité ça pose problème parité bi dafa poser problème bu bare. waaye gëm nañu ni ñun dinañu yegg fa ñu jëm. xëy na euh, njël mu jëkk bi. Euh, ñi nga xamante ni ñoom lañ ko séqal mu di suñu nawle góor yi suñu càmmiñ yi xëy na comprendre gu ñu carrément euh, loi bi nan la tëggee waaye li ci ëpp solo moo di du sax tëgginu loi bi mais ci système électoral bi la xam nga dafa am proportionnel ak majoritaire ci proportionnel ak majoritaire bi nag su fekkente ni dafa am ñetti places député alors bu ñu koy teg bu ñu tegee ñaari góor teg benn jigéen xam nga ñooñu bu ñetti place yi jàllee bu ñu yeggee assemblée il faut que mu am différence boo xamante ni jigéen ñi ñoo ñoom ñoo ci ñoom lay pénaliser. Mhm. lii moo waral mënuñu am e, e, égalité parfaite parité parfaite au niveau de l'assemblée ça c'est le système waaw e, du scrutin moom la ñu war a changer ñun gëm nañu ni xeex bi des na wante comme yegg nañu fii am nañu yaakaar ne dinañu yeggale te prép dañu war a préparer itam génération yi topp ci ñun ñoom ñu continuer xeex bi pour parce que loolu seen défi lay doon Euh, ah. beneen ponk bu am solo euh, mhm. di violence faite aux femmes même bu fekkente ni kuréel yi taxaw di xeex li nga xamante ni mooy àq ak yelleefu jigéen ñi bari na fi euh, terewul ba léegi gis nañ ni jigéen ñi ñi ngi leen di teg ay xeetu fitna yu baree bari tey ji lan nga ñu mën a wax ci wàllum violence faite aux femmes bala ñuy ñëw ci séjour yi nga xamante ni déclaré nañ ko d'activisme contre les violences faites aux femmes parce que démb xaw ma barki démb ci lañ amal bés bu yu ñu jagleel xeex euh, fitna yi ñuy teg jigéen ñi en tant que présidente bu réseau Siggil Jigéen lan nga ñu mën a wax euh, ci violence faite aux femmes fii ci Sénégal. waaw euh, violence faite aux femmes dafa doon loo nga xamante ni yàgg na ci jamono mënuma wax ni tey jii dafa ëpp wante média yi ni ñu koy fësale ni ñuy gëstoo mbir yi nit ñi di dénoncer ni ñuy waxtaane mbir yi xëy na loolu moo bees loolu moo tax ñu gis ni ah, ah métital ak xoñoñal ak dóor ak saaga ak fase eh, am na fi mais mësu fi ñàkk waaw mais nag dafa nekk ni tey lu xew rek ñëpp dégg ko avec les médias les réseaux sociaux eh, ak fit bi nga xamante ni jigéen ñi am nañ ko léegi mën a dénoncer wax ni man kat métital nan ma dóor nañ ma et bu fekkente ni wax ko itam sa voisin wala sa xarit bu ko yëgee dina dem ci organisation yi wax leen ko loolu moo fi bees maintenant li ci yokk moo di xëy na euh, ni ñuy reyee jigéen ñi mu di féminicide loolu daal moom la ñu seetlu ni vraiment lu doy waar la loo xamante ni phénomène bu ñu war a gëstu la te ñun bi ñu seetee liñ fi ñu ko sës moo di euh, pauvreté bi ñàkk gi dafa gën a gën a gën a sax ci askan wi li ci ëpp moo di ñiy rey jigéen ñi dañu leen di rey pour jël seen alal ñi euh, beneen bi ci topp moo di euh, ñu leen di rey seen jëkkër lañuy ñuy doon wala seen seen baay wala seen mag parce que situation yi ñuy dund ci kër gi xëy na ñooñu nekk nañ ci condition yoo xam ni amuñu liggéey dañoo drogué dañoo sàqali ko ak seen sago nekkatuñu ay doomu aadama yu normal ba tax ñu fab métit woowu suprême teg ko seen jigéen rey leen et mu doon phénomène de société boo xamante ni crise économique bi crise sociale bi moom moo ko gën a accompagner moo ko gën a suuxat ah ñu yaakaar ne nag bu ñu gëstoo sociétologue yi xool ci bu baax a baax dinañu gën a gis li nga xamante ni moo sos métit boobu ak euh, njàqare googu pour que loolu man fi tegee voilà euh, maintenant mm-hmm. li ga li ci ëpp solo waaw moo di euh, comme ñun xeex nañu ba ñu criminaliser viol bi parce que sàkku jigéen ci lu ko neexul mm-hmm. su suyu xoo nga rey ko loolu itam ci mbir yi la bokk mm-hmm. léegi comme criminaliser nañu. ci seen xeex tamit la bokkoon yéen waa réseau Siggil Jigéen ci seen xeex la bokkoon. Mhm. bu ñu appliquer loi boobu lu bëree bëri dina deñ waaye loi bi dañ ko war a vulgariser waxtaan ak njaboot gi parce que ñun ñoo jur góor ñi ñoo jur jigéen ñi war nañu toppatoo njaboot gi sàmm leen yëgal leen yar leen ci njëkk ak sutura ñu xam ni seen doom seen nawle góor ak nawle jigéen ay nawle lañu ay bokk lañu yërmante ak rafetalante moo fi mën a nekk pour que loi boobu ñëpp xam ko ñu éviter egg ci extrême yooyu pour que ñu bañ a kenn bañ a rey kenn vraiment ñu am jàmm ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal euh, Safiétou Diop nekk présidente bu réseau Siggil Jigéen ñu yëngatu ci lépp lu soxal àq ak yelleefu euh, jigéen ñi ñu daal di lancer six jours d'activisme contre les violences faites aux femmes programme boobu si ngeen si ngeen bokk lan moo ko tax a jóg exactement. waa seize jours d' activisme bi euh, euh, Nations Unies ñoom ñoo taxaw seetlu ne lii xew ci àdduna bi metti na ci jigéen ñi il faut que ñu jagle ko ay euh, ñaari ay bis yoo xamante ni a ah, àdduna yëpp communauté yëpp dinañ ci waxtaan xool nan lañ ci taxawee yee mbooloo mi yee jaboot gi pour que ñu yërmande mën a dox ci seen diggante ñu xool sellal diggante yi vraiment rafetal ànd bi et li tax couleur orange boobu itam ñu jël ko c'est pour que ñu fësal jëf yi fësal li nga xamante ni mooy campagne boobu pour que képp koo xamante ni xamuloo ci woon dara boo xoolee ces yi ñëpp ñun ñëpp ñu sol lu orange foofu gis ñu génne slogan yi boo ko seetloo da nga déglu boo dégloo da nga dégg te boo déggee di nga xam ne lii lu ñu war a la parce que société bi jigéen daf ci am solo mooy kënnu société bi mooy yaay mooy jabar moom mooy xarit euh, kon war nañ ko sàmm war nañ ko taxawal war nañ ko nemmeeku war nañu euh, am yërmande ci moom ba teggi métital ak ñoña ñoñantal ci moom day tax itam mm-hmm. autorité yi xam ne seen engagement yi war nañ ko respecté euh, waaw loi bi ñu appliquer ko mm-hmm. sàmm jigéen ñi ak seen yelleef ak seen àq protéger leen protéger xale yu jigéen yi ci biir société bi au moins pendant seize jours ci at mi xanaa ko dund loolu doon ko fàtte li li des ci at mi dinañ ko mën a appliquer lii moo waral seize jours yi jóg mu di campagne boo nga xamante ni bàyyiwul kenn bàyyiwul lenn àdduna yépp la wër pour que ñu xam ne jigéen euh, kënu askan la lu mat a sellal la lu mat a taxawu la lu mat a la lu mat a sàmm la te defe naa ne lislaam ci boppam bu nu ko appliqué woon mooy diine ji gën a sàmm euh, jigéen mm. gën a jox yelleef ak àq jigéen mm-hmm. ndaxte lislaam léppam jigéen a ko yore bu du woon jigéen tey raaye lislaam du yëkkatiku kon yaakaar naa ni ces jours d'activisme yooyu ñëpp ci ànd suñu chef religieux yi suñu communauté chrétienne bi communauté de croyance yëpp ñoo ci war a jàpp pour que loolu mu doon une réalité askan wi nattaat boppam dellu si delloo si xelam te xam ni yaay mooy kënu askan. beneen ponk bu am solo bokk ci seen xeex parce que jàpp ngeen ni sax ponk boobule euh, autonomisation des femmes dina tax euh, ñu gën a mën a xeex violence faite aux femmes fan ngeen tollu ci mbir mi maanaam jigéen ñi euh, di demal seen bopp bañati wéeru ci góor ñi parce que gis ngeen ni lu ëpp ci violence yi loolu daf koy dal di indi lan nga ñu mën a wax ci wàllum autonomisation des femmes. xam nga wax naa la ne violence lu ci ëpp moo di euh, ñàkk gi ak euh, wékku ci nit ki yaakaar ko euh, ah, koo yaakaar muy sa yàlla alors su fekkente ne nag ñun ñoo bokk jàngandoo ñu jàngal xale yi ñu am xam-xam xale yi jigéen yi ñu am liggéey ñu am seen àq ak seen yelleef am seen alali bopp bu ñu soxlaa seen bopp gis làmb seen poos la faj fecc seen sër faj ko jigéen ñi ñëpp kenn ku ci nekk am loo wéeru ba téye sa ngor téye sa famille ci loolu yaakaar naa ne lu baree baree baree bare ci violence yi dina mën a rës dina mën a deñ mu di autonomisation des des femmes autonomisation nag ci wàllu koom-koom économique ci la bokk waaye autonomisation itam ci wàllu xalaat ak gës gës gëslu politique ak ci taxawaayu kilifteef itam ci la bokk pour que ñun fépp foo nga xamante ni nag doomu aadama ma nga fay taxaw di saytu askanam di ko defal di ko waxal di ko liggéeyal jigéen man fa taxaw parce que am nañu kàttan gi am nañu xam-xam bi am na ñu taxawaay bi loolu su amee mhm. lu baree baree baree bari ci métital ak xoñoñal violence yi dafay jóge et bu ko defee askan wi mën na ci sukkandiku am jàmm pour que ñu mën a am développement. ñu gis maintenant ñun dañu bokk ñun réseau Siggil Jigéen dañu bokk ci ñi xalaat ni autonomisation rek doyul il faut que ñu am jéego ndaxte def nañu autonomisation boo baag léegi war nañu am ay chef d'entreprise war nañu am nekk ci koom-koom bi fépp waaw war nañu séddoo alal ji ak góor ñi waaye kenn ku ci nekk am laay biir ba nga xamante ni njaboot ga nga séq ak fu góor ki nga def ci sa alal ak sa taxawaay pour que jàmm rek ak euh, avancement man fa am waaye bu loolu paasee war nañu yëkkati beneen euh, kuréel ak beneen xalaatin boo nga xamante ni dinañu tax yegg fa ñuy nase ak fa ñuy noccee mu di égalité dans la décision ndax suñu fa eggul góor ñi alaa kuli ali tant que ñu ngi toog di xayma di nas di nocci di uh, natt alali askan wi di ko féetale ci fi nga xamante ni foofu la ñuy yaakaar ne mooy seen bëgg-bëgg uh, société bi du nekk ci jàmm jamais ndaxte ñun ñoo ci ëpp te ñun ñoo ëpp ay soxla soxlay yar suñu njaboot soxlay faj suñu njaboot uh, soxlay defal suñu njaboot soxlay jàmm ci askan wi kon il faut que ñu yegg fa ñuy nase ak fa ñuy noccee Euh, ñu respecté na jox na suñu gëdd jox na suñu statut et loolu dafa doon beneen phase boo xamante ni war nañ ci mën a jublu Nations na ci man xalaat loolu nag réseau Siggil Jigéen moo ko xalaatal boppam. dëgg la mm. xëy na euh, mouvement bi ñëw bu ñu bilan vingt cinq ans yi suñu génnee ci loolu au-delà de l'autonomisation dinañu ci dolli autonomisation politique sociale une véritable émancipation une affirmation du leadership des femmes, une affirmation de la personnalité féminine dans le monde entier. Euh, l'accès des terres aux maanaam euh, jigéen ñi nekk ci monde rural bi souvent dañuy gis ni euh, dañ leen di xañ suuf lu nit mel tamit bokk ci seen xeex lan nga ci mën a wax. loolu bokk na ci euh, poñ yi nga xamante ni ci fukki poñ ak ñaari plateforme bi Beijing ci la bokk. Mm-hmm. loolu buñ koy seet ci luwaay yi luwaa yi wax nañ ko amul lenn loo nga xamante ni moom lañ ciy dingat ci ni yoon tërale waaye ba tey jëfin wi bu ñu daagoo jëf rekk bu des dafa fekk ni mentalité yi mooy yeggagul ci góor xam ni euh, euh, suuf si góor ak jigéen ñoo ko bokk euh, yàlla moo nu ko jox mu di wuti yu koom boo nga xamante ni képp ku ko war a mën a jëfandikoo te am kàttanam am xalaatam am pas-pasam war nga caa mën a jot euh, nga liggéey ko liggéey ko au profit de toute la communauté pour le climat bis bu ñu yeggee ci révolution wu mentalité yi defe naa ne l'histoire du foncier sera une histoire ancienne dans nos communautés waaye dafa des il faut que ñu continuer jéego yi waxtaan ak sensibilisation conscientisation ñu changer façon bi ñuy gisee ndaxte la woon ca maam woneeku na tey jigéen war na am xam-xam war na mën a moom alal war na ko mën a saytu te lépp bu ko defee itam taw féexu jaboot gi lekk lay mën a doon du doon euh, mukk loo nga xamante ne dafay euh, néewal doole askanam au contraire te góor itam war na mën a xam ni jigéen nawleem la waaw war na mën a am kàttan ak alal ak suuf ndaxte bu ñu bokkee ak ñoom école yi di jàng très souvent ñoo leen di ëpp xam-xam ñoo leen di ëpp taxawaay waaw xëy na kay fi ñuy na saxe moo di xalaatin yu nga xamante ni dellu na ginnaaw ku góor ki yaakaar ne ba léegi moom moo war a mën a dundal moo war a yedd moo war a sàng te loolu amatu fi fi mu nekk ku nekk xam na ne jigéen ju nekk yaa téye sa bopp téye sa famille xëy na sax yaa téye waale góor gu fa ne bu ko defee ñu respecté te joxante ak wax dëgg yàlla du ànd àndu nawle bu ko defee ñu dindi mentalité boobu nga xamante ni danañu gàllankoor ci suuf si mhm. tey suñu jotoon ci suuf si yaakaar naa ne lu baree bari ci Sénégal dina soppeeku ci révolution agraire tey agriculture bi dinañ ko téye bu baax ndax ñun lépp lu ñu soxal moo di liggéey pour njaboot di mën a euh, lekk mën a lekk-lekk gu sel lépp mën a yomb ñëpp mën a am taw feex kenn ku ne gis sa bopp ci li nga xamante ne moom la ñuy produire fii ci suñu Afrique gi voilà mu nekk lu am solo sànq sax si biir wax yaa ngi koy euh, tuddaale ci euh, ak yi nga xamante ni réseau Siggil Jigéen am na ko di loi sur l'excision euh, même bu fekkente ni loi bi mi ngi fi gis nañ nag dafa nekk sujet bu sensible parce que pratique bi ba léegi mi ngi continuer di am réseau Siggil Jigéen naka la fas yéenee def pour ñu mën a appliquer loi bi pour tamit ñi nga xamante ni ba léegi ñi ngi pratique pratiquer euh, excision bi ñu daal di koy arrêté euh, di li nga xamante ni mooy euh, xarafal jigéen ñi. xam nga loi moom application la sant waaye loi bu fekkente ni dafa lënkoo ak aada cosaan ci askan wi il faut que ñu waajal askan woowu pour que mu comprendre ni lii aada ju rafetul lay bu ñu war a la ndaxte boo appliquer loi bi tëj te préparé woo xel yi itam ah, ñu dellu si waat ci ndaxte du ñu xam lu waral ñu dem ca kaso ba alors li am solo moo di euh, njongolum jigéen reculé na def nañ ci progrès yu rëy rëy rëy rëy tey jii mën nañoo wax ni Sénégal ci réew yi gën a le prévalence njongolum jigéen la bokk ñu ngi ci taux bi mu ngi varié entre vingt trois vingt quatre pour cent alors que ci sous région bi soo demee Guinée gii rek ils sont à quatre vingt dix sept pour cent ci njongolum jigéen Mali gii ils sont à quatre-vingt-huit pour cent ci njongolum jigéen ah bu doon donc Sénégal doon ilo boo xamante ni nañu sant yàlla parce que rës na fi dellu na fi ginnaaw lu baree bari te loolu organisation société civile yu mel ni réseau Siggil Jigéen liggéey nañ ci lu baree bari engagement wu gouvernement bi itam def na ci lu baree bari ba tax vraiment nit ñi ñu ngi gën gis ni lii baaxul dafay gàllankoor doomu aadama bi gàllankoor jigéen bi gàllankoor famille bi ñu ngi koy bàyyi de plus en plus maintenant des na ay pàcc euh, euh, euh, sud du Sénégal il faut nga xamante ni dafa laaj ñu continuer waxtaan wi te defe naa ne organisation yi mel ni SOSTAN ak réseau Siggil Jigéen ak ñeneen ak ñeneen ñu nga fa ak COSEPRAT ak ñeneen ñi ci au aussi des na fa tuuti ñu ngi ñu ngi ci liggéey maintenant da au niveau du centre au niveau de Dakar li ko fiy indi moo di euh, population yi jógee ci yeneen réew yi di ñëw ndakaaru nekk ci gox yi nga xamante ni gox yu euh, suufe la di continuer di def seen aada yooyu et loolu defe naa ñu ngi ciy xeex am nañu ay stratégie pour waxtaan sensibiliser xeex waaye bu ñu xeexee itam bis bu ñu gisee cas boo xamante ni dafa flagrant dañ koy yóbbu ci yoon daan teg ci loxoom wan ko ni ko yoon kat ñëpp la yemale waaw ñu jaarale ko impunité ñu dindi ko définitivement ci réew mi buñ ko defee daal yaakaar nañ nit ni d'ici euh, deux mille trente euh, lu mel ni njongolum jigéen ak xeet yu mel noonu dana fi deñ laayo mi diini pour que jigéen ñi am jàmm askan wi am jàmm. laaj bu mujj bu lay laaj euh, moom mooy avortement médicalisé euh, bi nga xamante ni euh, droit de l'homme si yëkkati nañ ko coow li bari na fi ñu toll nii dafa mel ni da ngeen ci dellu gannaaw avortement médicalisé pour les cas de viol et d'inceste ba léegi yéen ngi xeex xeex bi wala da ngeen ko teg ci suuf bi nga xamante ni yenn ci religieux yi ñu ngi dal ci kaw ñi porter combat boobule. boobu damay préciser rek ne réseau Siggil Jigéen taxawaayam ci loolu dafa leer nañ ñun ca njëlbéen ga dañu ne euh, lépp loo nga xamante ni dafay euh, lor jigéen ci ëmbam ak njurum doomam war nañ ko di saytu pour que bakkan yi nga xamante ni ñooy def mortalité maternelle bi euh, ak morbidité yi ñu wan ko xeex dindi ko waaye ci wàllu avortement réseau Siggil Jigéen dafa mas a suñu mësuñu d'accord ci avortement doon méthode de contraception ndax suñu réew mii réewu jullit la réewu diine la réew mu am ay valeur la réew mu respecté ay aadaam la te eh, ngëm daf nu obligé ñu tënku ci diine ak valeur yooyu ndaxte moom mooy ràññee suñu askan moom mooy def suñu différence kon euh, euh, mësuñu accepter avortement ñu def ko méthode contraceptive libéraliser ko jigéen ju mu neex rek ju mu saf rek mbaa ju am gàllankoor rek soo ëmbee nga dem dindi ko déedéet réseau Siggil Jigéen mësul bokk ci loolu maintenant euh, ci biir xeex bi ni war nañu sàmm àq jigéen war nañu sàmm bakkanam war nañu sànn bakkanu doomam war nañu sàmm sellalu famille bi ci lañu ne euh, jigéen ñi li ñu seetlu moo di euh, euh, ci biir bërëb yi xeex yi en général zone de conflit ak ci biir kër yi yenn saa ci njaboot yi dafay am ëmb yoo nga xamante ni dañ koy teg jigéen ki mu di à l'issue de viol ñu sàkk ko te neexu ko mbaa muy ndey baayam wala càmmiñam mu di inceste bu jege jege mu ëmb ca te li koy li ciy conséquence bi moo di dañu dañu koy nëbb digganteem ak yaayam ak ci bàjjanam ñu dem wuti ku leen ko dindil dindi booba jaarut yoon xale boobu dee ci mu di avortement clandestin ak taux de mortalité bi muy entraîné ñu ni kon musiba bu jur musiba la léegi nan lañuy ñuy dindee musiba boobu définitivement comme léegi ak ak yelleef dafa may jigéen nag wax dëgg yàlla mu mën a conserver ñu bañ ko mën violer bañ ko mën a tëddee ñu muy inceste bañ a mën a yàq àddunaam ci société bi loolu su fekkente ni am na doom sos ci ah mu am kersay euh, njaboot bi mën a am ay répercussions ci bakkanu xale bu jigéen bi ëmb doom ji ndax mën na dem def avortement clandestin mën na dem xaru man ñu seet ci nan lañ koy seete ci hôpital bi docteur yi saytu ko li ci diine wax ñu def ko bu fekkente ni ëmb boobu diine mën na permettre bi bu fa ëmb eggul mën nañu ko mën a lijjanti te loola lenn du ci ne ñu euh, teg ko ci yoon permettre hôpital bi ñu sauver euh, bakkan boobu ndax moo gën ñu bàyyi ko mu dem defi clan avortement clandestin mbaa mu xaru ñàkk bakkanam alors que véritablement dañ ko tooñ lii mooy position wu réseau Siggil Jigéen mhm. maintenant revendication la bu leer nañ dañu ni en cas d'inceste ou de viol et euh, euh, la grossesse affecte vraiment la vie de la femme euh, ñun dañu gëm ne Euh, euh, nguur gi war na permettre médecin yi hôpital bi secourir jigéen jooju su fekkente ni bëgg na ko mais su fekkente ni bëgg na ko réseau si jigéen dafa leer nañ mhm. su dee ku jigéen kooku dafa bëgg a conserver ëmbam boobu ci condition yooyu nañ ko bàyyi mu téye doomam parce que yàlla am na leneen lu gën su fekkente ni nag boobu ko daf ko nara te bu ko génnee day xaru ji mbaa mu amorte ji neneen nañu seet nan lañ koy defee ba nga xamante ni lii yoon wax diine wax ko mu di bu ëmb bi amul cent vingt jours mbakkan euh, newu fa considéré wu na ne am la ñu bu dee circonstances yooyu mën nañ ko observer vraiment médecin yi dimbali ko système de santé bi dimbali ko ñu sauver bakkan bala ñoo ñàkk ñaari bakkan yi yépp à la fois lii la réseau Siggil Jigéen taxaw. Mhm. may dell si waat ni. da ngeen dellu gannaaw ci xeex bi. dellu nu wunu gannaaw ci xeex bi parce que ña ko doon xeex xëy na am na yeneen organisation yoo xamante ni ñu ngi défendre leneen mais réseau Siggil Jigéen dafa mas a constant ci lii lii ñu wax. parce que ñun ca gëstu bu jëkk ba dañu jëkk a dajale euh, borom xam-xam yi sënk ko ci lislaam gëstu ko ba wax xam la ca diine wax ba xam ni lii la ci diine wax lii la ciy tere lii mooy conditionnalité ci loolu lañu ñu tënku ni loolu nag suñu ko réunir condition yooyu te mu mën a sauver bakkan wala war nañ ko mën a permettre euh, médecine bi ñu Euh, aar bakkan boobu sauver ko mais mosuñu varier ci suñu suñu position mm-hmm. lii mooy suñu position delluwuñ ci ginnaaw. mais dafa da ngeen seeral euh, madame Safiétou Diop mbir yi dafa sedd parce que début bi ni ngeen songee woon xeex bi ak léegi pour ngeen wax ci sax c'est tout un problème parce que ñu bari doon nañ dégg ñu ciy wax mais dañu retiré wu wala sax dañu teg affaire yi ci suuf waa mais xam nga ñooñu laaj ko ñi nga xamante ni ñoo songoon xeex ba di ca wax leneen lu dul lii ma wax. Mhm. xam nga ñun bi ñu commencé di waxtaan waxtaan wi yàgg na mais suñu changé dañu mës a gëstu teg ko ci diine ànd ko ak kilifay diine ak kilifay aada yoo nga xamante ni xalaat bi leer na nañ ci ñoom suñu laaj loo nga xamante ni dafa teggi suñuy diine ak suñu aada ak suñuy valeur te ci foofu lañu mës taxaw xëy na. Mm. ña dellu ginnaaw mooy ña laajoon leneen waaye ñu laajuñu leneen te ñu ngi ci ba léegi foofu la ñu ko sës ba keroog ngeen di am gain de cause voilà waaw waaw maintenant nag ñu mm. am gain de cause mm. ah loolu euh, société bi ci société bi la dépendre ci comité bi la euh, communauté euh, bi la dépendre ndaxte boo eggee foofu communauté bi su dee am nañu yeneen solution ba ëmb du am waay waay loolu la ñuy dañu ñaan communauté bi sellal digganteem ak jigéen ñi ñu rafetal ànd bi viol bi jeex inceste bi jeex benn jigéen bañ a tee jooy ëmb bu bu ko neexul boo xam ni suñu ko fenn wax dëgg yàlla bu loolu amee defe naa ne wax ji day day sóoratu kenn dootul waxate ni affaire avortement ak lii ak laa ak laa parce que jigéen bu ci nekk dana gis sa bopp ñu respectente yan euh, euh, euh, kii suñu ak ak yàlla yelleef ànd ànd nawle kenn ku ci nekk yërëm sa morom bu ko defee jigéen ñi dootuñu toog xalaatati mbiru avortement parce que jur doom dafa metti doom ci xol la sax soo ko juree dangaa bëgg nekk jur ko ci condition yoo xamante ni danga ko toppatoo yor ko bu ëllëgee nga di ko sagoo liggéey ci moom yar ko ba bu ëllëgee mu doon sa njot àdduna ak alaaxira waaye kenn bëggul a jur doom di ko rey. Euh, Safietou Diop euh, waxtu bi ah. dab nañu xanaa dañ lay bàyyi nga tàggatook auditeurs yi ak sa euh, mbokk waa réseau Siggil jigéen ñi. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter nag communauté bi yëpp ci seize jours d'activisme contre les violences faites aux femmes ndax tey. suñu am mënee am tey victoire ci xeex bi dafa fekk boobu suñu nawle góor yi ah laxasaayu ànd ak ñun ci xeex bi parce que autant am na jigéen ñu am conscience ni war nañoo mën a toppatoo askan wi autant am na góor yu am conscience ak yërmande ni war nañoo jàppale jigéen ñi ñu tinkeeku ci li nga xamante ni moo dal mu di nooteel ak ak suufeel ak métital te nga xamante ne loolu ñun Afrique doon donnuñu ko fenn dañu ko dañu ko indil ay valeurs yu ñu importé la parce que Afrique dafa mas a doon Afrique matriarcale dafa mas a fonk ndey dafa mas a fonk jigéen waaye ak colonisation bi ak duggal ñeneen ñi ñooñu indil tey fedd géewu ak naqaral ak metital ak dóor ak rey ba tey jii ñu di ko xeex ñu ñaan yàlla communauté bi yépp taxaw góor ak jigéen ñu ànd joxante loxo ci seize jours d'activisme yi kenn ku ci nekk boo jàkkaarloo ak jigéen nga gis ko comme sa yaay gis ko comme sa doom ju jigéen nga tàllal ko loxo ngir yàlla te sobe ko te xam ni ëllëg yéen ñaar yéenee ànd mën a defar seen askan defar seen ëllëg defar seen nekkin wu neex ci àdduna bi loolu mooy njëriñu tey ci njëriñu ëllëg moom loolu mooy mm. sama message ci ces jours yi mm. c'est-à-dire vraiment une alliance très positive avec les masculinités positives de ce pays-là góor ñu baax ñi ak jigéen ñu baax ñi ñu ànd xeex li nga xamante ne tey jii mooy góomu askan wi mu di violence faite aux femmes yii te doonuñu ko fenn ci suñu te askan doonuñu ko fenn ci suñu aada dañ koy dindi ba mu set wecc pour ko ñu am jàmm ci suñu communauté. ñu koy remercier bu baax a baax euh, kile di Safiétou Diop nekk njiitu réseau euh, Siggil Jigéen ñu ngi koy remercier disponibilité di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñoon chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo euh, ba nekkoon ci cabine technique bi émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.